suma mbokk juliti suma mbokk sénégalais man olof yi ñoma jangal alquran ñoma yar ba ma nek ni tay Serigne Abdou Touré fas Touré maa ngi koy ni moma jangal jàngal mu ko alquran ba ma xam li ma xam tay Sénégal fi la ko xamé ginaaw loolu suma deuxième jabar wolof la kon man dama Aziz اسمع او سرا خليلا دازم ولا فلا نانغا ديفلا كون مان بوما واخي سرا خليلا نيا ياكل سرا خليلا لا فرال سرا خليلا ريك دي دابا دون سرا خليلا موتاخ ما فرا سرا خليلا واي باي ما نيو ني تام ني ما جانغال باي ما لين ناخ بوما اغي سنغال نيبا ما يكت سي كاو ديك ما ني بريزيدان ديك ما ني بو سنغال امنا كو فا فما اغ ريسبكتي ني ما خول لي سنغال ابتاي ولا لا ولا فلا ولا bàyyi na liggéeyam yëpp topp ma ba fii wax bi yëpp li am solo li am solo gannaaw ambiance bi gannaaw reetaan bi gannaaw kaf bi ñu ah. ma leen di wax ah. mooy liggéey bi